dal leen jàmm seen taxaw seetlu ñëwati ginnaaw bañ defee tour du net li gën a fas ñu baaxee leen ko yéen ami internet Dakar live ginnaaw ay jàmm foofee ci université ñu ah, si dox tànk jàmm ah, ginnaaw coow fi doxoon ndax gis sax ay point de presse yu amoon foofee ci université Cheikh Anta waaye amoon nañ ñeen si ay étudiants sax yu tax woon ne mbir du fa am te lépp warul ko rek diggante coow li doxoon ci ki doo ak nga xam ne ñoo bokk bokk ci amical bi nga xam ne moo jàppoote li nga xam ne mooy séeréer yi di Ndefleng waaye am na ñu ci dox tànk jàmm ba alhamdulilah ndax nag séeréer joolaa wala pël ak bépp indi bu munti doon fii ci Sénégal rek ah, dañoo bokk ndey ak baay te loolu kenn waru kaa yàq te ñu ngi dem ci yoon boo xam ne ah, buñ fa duggee rek dina bëri xaaxaam te xaaxaam yi mun na jëm ñëpp ba tax na nag ah, jot na sénégalais yi bëri bëri rawatina kilifa yi ñu dox ci tànk geeko moo tax am na ñenn kilifa yoo xam ne jug nañ sol seen dàll waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy étudiants yi foroo ci li nga xam ne mooy Kikendo ak ñi nga xam ne ñoo far ci Ndefleng ndax nag li nga xam ne mooy université Cheikh Anta Diop wala bépp université bu nekk Sénégal a ah, na di am li xam ne mooy amical wala ay wala lu lépp bépp ethnie bu doon te ethnie yi Sénégal li ñu leen mooy affaire de cousinage jàmm waaye tamit foo ah, nag ñu ngi sant yàlla ci mbir moomu noonu dañuy tàbbee nag ci mbiru ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna nekk activiste bi ginnaaw bañ ko jàppee dencoon ko foofee ci Sébikotane ah, te dara waru koon loolu yenn affaire yi nga xam ne jotoon na fay xew ñu jëñ ko teg ci moom ak Assane Diouf ak ñenn ci ñi nga xam ne mooy ay yërëmam nee na ñi expliqué comprendre ñu nu mbir mi demee moom loolu taxoon mu def lu waaye tamit di wax ne nit ñu xoolaat prisonniers yi xam ne ñu nekk ci prison ay doomi aadama lañ te nañ leen respecté ndax nee na li xew foofu ci li nga xam ne mooy prison ba euh, ñaaw na trop trop ba tax na sax mu ngi doon dànkaafu ñi nga xam ne ñoo diriger prison bi di leen wax na leen euh, nit ñi fa nekk duñ ay mala ay nit lañ nee nañ daal moom li mu fa dund moom nekk na loo xam ne yéem na trop ndax na am na benn jour boo xam ne def na fa lu bon bon benn cinquante quatre heures boo xam ne dafa nekk ci benn ruq boo xam ne mënul sigi mënul def dara de pare salte gëm salte rek ay yenu na boo ko xoolee rek da ngay tiit ndax loolu nee na lu ko ci jaaxal mooy ab doomi aadama nan lañ ko mën a dugal foofu noonu te nekk na daal loo xam ne nee na moom day joxe ay révélation foofu di wax ne dafa jot nit ñi ñu bàyyi xel ñu nekk ci prisonniers yi waaye tamit ñi nga xam ne ñoo diriger prison yi ñu xam euh, ne ñoo defal Guy Marius Sagna te lépp taxu ko rek ñu ne euh, Guy daa war a arrêté li nga xam ne mooy dox bi am oto ñoom nag ñoo ko def te fu ne nii sax ngi xam ne ne oto boobu yàggul dara guy dina si jot parce que neuf millions ak lu ko teg sénégalais yi dajale nañ ko Guy Marius jëndal ko oto waaye day na ñoo xam ne nag ànduñ ci mbir boobu ndax am na sénégalais xam ne génn nañ ci mooy Guy nga xam ne mooy euh, euh, Abbas euh, nañ na gisante bi neexoon na lool kontaan nañ trop te gis nañ ñoom seen biir waa Pastef am nañ mbégte ginnaaw buñ gisee seen ñoñ yooyu nga xam ne jotoon nañ leen jàpp waaye gis nañ tamit bi tamit gis nañ ki nga xam ne mooy journaliste bi di Madiambal Diagne def na ay révélation ginnaaw yenn génn yu mu fi jotoon génn wax mu mbëri woon coow lool moom mu ngi xam ne moom ne mooy manifestation a xew fii ki nga xam ne mooy Ousmane Tounkara di activiste bi Ousmane Tounkara nag nee na wax ne moom ab Guinéen la dañuy wax rek ab yàq der moo leen tax moom ab Sénégalais la euh, te fii la juddoo te juddoowul fenn fu dul hôpital fi nga xam ne moo nekk la Dantec euh, nee na ñi ñi daal wax li ñuy wax ji yëpp ay waxu sos la waaye bu ñu jógee ci loolu dañuy tey du gulet depuis 2016 euh, moo créé entreprise am di créé li nga ko nag Sénégal environnement nee na nit yëpp di yàq ne ay mbaam ay état moo ko dimbale yenn ñi nga xam ne ñooy site bi wala site yi nga wala xam ne ñenn ñoo nekk presse bi def ko nee na dina leen porter plainte ndax moom lii liggéeyam la te tamit moom moo ko créé ku ci ñëw nag jàpp si daf ko créé pour créer xam ne mooy entreprise bam jimbale euh, ñi moo ko créé génn ay mbaamam ñuy tuur li nga xam ne euh, boobu noonu ko ko lebal ci banque bi a fay euh, nag dalul benn ab ndaw la dal ba tudd si li nga xam ne mooy Daouda ah, a jàpp foofee a jox nag ah, da ngeen ay ah, dañ ko boole ak ASP ASP bi nag nee na daf ko saaga ndey waaye tamit jël ko torturé ko dóor ko dóor yi métti boo xoolee kanam gi sax dañ ko jot a yàqu waaye nee bëñam yëpp tamit jot a wadd nekk nag lu métti ba tamit Daouda Sangaré moom ah, nee na du bàyyi loolu ndax na moom dina porter plainte ba tamit ah, dinañ indi ay leeral ci mbir ne ASP bi moo ah, lool lool Daouda nag mu ngi doon defee mbir moom fi nga xam ne moo nekk suñu ay naataango Dakar Buzz di indi ay leeral bi jot na ko dóor ba pare bi saaw ko Daouda nee na dara métti ko lu ab nan la ko mën a jàppee du ko dóor te nekkul homme de tenue mbir moomu nag moo ko métti mbokk yi nes ñu bàyyi leen ngeen seetaan vidéo du jour yu ñëwaat j'avais mis des thunes de côté et tout xam nga. Hmm. ma loolu noonu c'était je récupère mon passeport. ensuite nga génn. sey ah. ma ne ensuite nga sey léegi yow. ah garaaw ba mu nekk. waxal waxal waxal waxal. comment tu vas faire en fait parce hmm, c'est pas facile de ñëw de génn génn noonu noonu noonu noonu. parce que lan parce que lan ci lan nga ko teg. non déjà t'as pas ton passeport. non. comme non pas genre waxal ma côté boobu mais j'espère tu te dis tu te tu te dis ni ci aéroport yi wala dañu maa dañu maa exactement. dañu maa dénoncé foofu. waaw. bu bëri tey. xëy na fi nekk daa biri bruit. ma ne problème bi. Hmm. naar yi ñoom genre ils se sont dit voilà quoi comme que li ngeen di wax nii moom affaire bi jàppee wuñ ko si ñoom patati patata. Hmm. on peut pas l'inculper quoi tu vois. d'accord. voilà du du coup man j'ai pas de problème avec avec les naar quoi c'est juste les sénégalais qui restent là nekk di kéem di teg yaa ngi gën a xam. mais je pense que foo demee ba lijjanti sa bopp ba génn je je me aussi que peut-être mën nga jàppale la moom aussi ba mu génn ci ah mon avis. personnellement c'est mon avis. te soo defee loolu mooy gën a rafet. sib mais nii nii nii nii nii nii mof sax ah. laa mof. ma ne lii nii laa mof. moom mu génn si moom ma moo gën a yomb man. xam nga li ma la ma génn si quoi parce que la moom nii. il est soutenu par le consulat et tout xam nga. Oh, Sénégal ñu bëri ñu bëri instant bii nii troisième troisième fois ñu ñu repousser jugement bi. Mm-hmm. deuxième fois quoi bu prochain jugement da lay leer ne loolu Sénégal foo ko gis boo ñëwee dañ lay bàyyi su sûrement dañ lay bàyyi. wala benn pen lañ lay nga fay xaalis est parce que ñoom sib nañ ni carrément laa ma fu waaw hmm. elle est pas là-dessus quoi xam si yoonam nekk si affaire yooyu noonu waaw waaw waaw. da ñibbi nii wala si yoon nga nekk parce que sa ngelaw gi moom. waaw damay ngelaw gi de waaw xam nga dem tax taxaw mooy genre dama bëggul toog ci néeg bi di teg ak yow nii hmm. kon yow ngay dox nii yëpp yaa ngi yaa ngi si comment dire entre parenthèse gàlle. gi bëri na de. non nekkuma ci biir gàlle bi ah. dama génn. ah ok. ah genre bëggoo bëggoo waxee ci appartement je comprends. voilà. d'accord. Sénégal ñuy duul naan xaw ma trop xaw ma lan achis la achis. te nekkul woon achis. achis la achis. Ah. non mais quand tu quand quand tu tu fais allusion à ay marijuana genre yooyu des trucs waaw plus graves quoi tu vois. Mm-hmm. mais ici au Maroc booy HCR booy. du dara si ñoom mais xam naa niñ ko jàppee si ji ku jigéen ki loolu moo tax genre yooyu noonu. Eh mais bon. yàlla baax na. comme comme xanaa peut-être ay yow wala ay ma mère quelque quelque de mes boy mais à part ça j'ai j'ai pas de compte personne xam nga. yaa ngi déggante ak sa yaay. rek. Ah, c'est l'essentiel. bon c'est ça quoi. Mm-hmm. man je me dis que ça j'ai pas j'ai pas de compte à personne xam nga. Mm-hmm. nit ñi kenn mënu leen a tere wax. nga def dinañ teg képp waa ana munaas munaas mu ngi fi ñu si jaam waaw ñu si jaam de alhamdulilah hmm. waaw elle va bien mu ngi dégganteeg nabi yaa ngi dégg ñoom kii ñoom nabi ñoom wës doy non nabi de nabi de man maa ko sax bloqué mu fépp nabi daa tiit moom waa début bi was euh, c'est ce qu'il avait dit que bi dafa tiit day bañ a claté genre yooyu noonu mais bon xam naa daal moom yoonam nekk si c'est man la quoi c'est c'est moi c'est moi dans tout ça xam nga. mais peut-être comme il se disait que yéen a bokk appart genre yooyu noonu. comme il se disait que lan genre ñoo bokk tout. waaw waaw waaw. il savait de quoi je me loolu ça ça lui inculque quoi. waaw c'est vrai de mais bon je me dis su tiitee daa fekk ne def na dara. deful dara ah, nag daa yambar nabi nag. ah. moo tax nag bàyyi ko foofu. sinong Mateo. Hmm, ça va de. ama dama dugg ci néeg ba ndax fii dafa sedd quoi. waaw d' accord soo jëlee def ma si. nga ne yow ça va. waaw ça va de. Hmm. Mhm, maa ngi géré. pare pare nga sa projet yi nga doon wax xaw ma la am naa sa commune bi nee la. mbokk yi lii leen fi indiloon seen taxaw seetlu ginnaaw bañ leen sante di leen gërëm di leen jox dox daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf fii ci baatu xol bi Dakar Live TV.